baa ngi noonu ci diggante Thiat bu Waalo écurie Waalo ak Grand Magny école de lutte Boy Niang arbitre bi sifflé na Grand Magny arrière na Thiat bu Waalo arrière na ci diggante Thiat bu Waalo écurie Waalo ak Grand Mbagnick équipe de lutte ba Boy Niang Boy Niang numéro un waaw dimanche 30 octobre 2022 fii ci Arène nationale première édition drapeau Modou Kane Thiaw ku ñu fi indi tey mooy Mewane production daal moo meewaat yaa meew xali ne ma ak aan man nga ko daay aan bi man maay mi <laughs> dëgg la loolu la wax ñaani bëre ngay ak njool waaye ku gis ñaari mbëri xam ne liggéey nañ dem naa ba xool leen ba xam ne ñii liggéey nañ moo tax combat bi du yomb tey mais waa li nga indi nii lan bi baa di sifflé waat bi ngeen bëree cinq minutes ab bi di ngay sifflé wala sax dix grand combat yi règlement bay changé CNG moo ko changé wala la wala lañ ko ah lu ma si xam ni nawet bi wuñ ko ba lekk lu fa nekkoon ba léegi moo fi nekk dëgg la merci beaucoup Khalil nga fu voilà déedéet astafurlah automatique. ñaari mbër ya ngay lew too Khalil du la faale waxal du ma déglu woon waxu ginnaaw sànq def doon nalaw mu may ma kafe. benn xale bu jigéen moo ko may café bu may ma café <laughs> heureusement ba nekk soow bu doon ko naan ñaari mu dee ngay lewtoo caat bu waaree kiru waalo grand mañik grand mañik moo njool caatu waalo moo nekk ndaamali caatu waalo ba léegi mu ngi si biir saako ya waaye bañ ñamante ku nekk xam sa morom lu muy saf dafa mel ni ay ah, Grand Mbagnick day dem Grand Mbagnick dafa sëgg ba tolloog moom nee na ko njool laa waaye damay sëgg ba tolloog yow yow muy ndaama loolu la ko waxoon te tey def na ko lan moo si des di ko waxoon te defe goo ko jàpp na tànk ba xeex ba engins ah, suqate ñoo ngi suqate rag leen mu ne aay ah, waaye taxawaat na eh duraat na ko waaye day xalaat mu bëtt ko waaye Grand Malick baax nga yi ngay rak bu waalo ngay arrière bi arrangé wu ko moo tax mu bukki jaar si suuf buy xeex xel baa ngi si suuf la de gerte loola ko wax wala wax ko loolu Aliou est si dara bi ba tey maanu nga <laughs> Aliou tey maanu nga Aliou neen xamu si dara tey jërëjëf automatique Ce garçon, il est automatique. Ce garçon, il fait partie des grands, parmi les grands des caméramans. Wassare. looloo waral automatique numéro un tuddee ko automatique numéro deux <laughs> da ngay gis booy ñaar numéro un booy ñaar numéro deux ëmb seen ëmb seen waaye biir wasaare dafa am automatique un automatique deux waxuma kenn nag ñaari mbëree ngay léewtoo fu mu toll nii foofu laa tal dafa mel ni xeex bay ngay arrangé gaaw leen balaa cinq di jeex astafurlah dix minutes caat bu waalo grand Mbagnick grand Mbagnick a waaye dem demul booy dem muy jaar ci suuf maa la wax lii eh, wax naa leen saa lii xewee géwél la ngay dégg jërë ngeen jëf géwél yi reporter yëpp lay wax si suuf ma may wax kaw ratatat lii ba jàmm te maa mujjee de looloo ma jaaxal gaa ma ni bii moo ko arrangé wax naa da lay jël moytul ma tàng waaye plaqué na ko daan na ko moo ko ko daan na ko moo toog si waa géej waay di ñëbbu ndam waay waay waay waay waay ma yëg li lan la nii la da jël ko wala déet astaghfirullah sama yoon nekk si